yéenekaay bi di libération ne ana fu mu féete tey moom Serigne Lamine Sall mi yëkkati woon ay kàddu ñagas jëmale ko ci suñu mbokk catholique yi keroog ci émission diine ak jamono ci Walf TV yéenekaay bi ne Serigne Lamine Sall moomule église bi ñaawlu nañu ay kàddoom sàkku ci moom ngir mu jégalu publiquement libération ne église bi yemu ca jot na kalaame mbir yi ci sénéra mi jébal mise en demeure groupe Walfadjri maanaam sénéra dankafu na groupe Walfadjri mi ko ci ab communiqué libération ne li ci bees ci dossier oustaz Lamine Sall tey section de recherche ngir déglu yéen ba ko ñaareel bokk na ci église bi tey jii la fas yéene kalaame mbir yi fu mbaxana doone benn libération ne jàng wi kay mer nañu ba futu te la bëgg nag mooy imaam Lamine Sall jéggalu ci kanam askanu Sénégal gépp ginnaaw kàddu yi nga xam ne yëkkati ko ci réewum Sénégal libération yamu ca ndaxte nee imaam Lamine Sall woolu ni ko tey jii ca section de recherche ginnaaw kàddu yi nga xam ne yëkkati ko te mu nakare jullit dee chrétien ci ne coordinateur u astunu ma nga ca loxo yoon ndax ci AIBD dañ ko jàppee ne nuus ba noppi fëgg ko mandat de dépôt ndax moom Bassirou Seye daal lépp Abdoulaye Dieye deux cent millions sunu koppar ne ko fii ak ñaari fan dinaa la fay yëglekaay bi nekk ba ñu tàmbalee campagne bi ak tey ji moom Bassirou Seye Abdoulaye Dieye tegu koy gët wane ko téléphone waaye jotu ko yëglekaay bi ne en tout cas Bassirou Seye nag ma nga ci kaso bi ndax njuuj njaaj maanaam escroquerie lañ koy toppee ndax rek laa lijjanti fii ak ñaari fan koppar yëpp ma delloo la ba léegi ni daal France daal que Serine Lamine Sall est convoquée à la section de recherche. Bonne lecture à tous.